صلاة الذي في كل سهر وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy bàyyi xel seen télévision Touba TV fépp fu ngeen nekk ci biir réew bi Sénégal ci bitim réew ñu leen di nuyu leen ziar leen sant leen gërëm di leen dalal ak jàmm nag fii ci dëkk bu sell bi ci Touba ci seen émission waar xam ngeen seen télévision Touba TV euh, li nga xam ne moom mooy liggéey Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul kenn du ko ci jiitu ndax dafa jël léppam jox ko Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba euh, xam ngeen ni nag ba li nga xam ne moom moo di weeru safar bi teroo ba nëga ni gis ngeen suñu programme lépp dañ koo méngale ak weer wi lépp tam ñu méngale ko ak wàccaay li nga xam ne moom moo di màggal Touba ba tax euh, lu bari ci émission yi ñu gën koo méngale ak safar ji euh, li nga xam ne moo di émission waar yu ñu tudde ko yor yor safar ànd ci ak soxna Aram Diagne dooy du lundi au vendredi jeudi bi nag ak vendredi bi yoor bi mi ngi bàyyeekoo fii dëkk bu sel bi Touba tey jii di premier euh, numéro bi ñu fa yéene koo jagleel li nga xam ne moom mooy ubbiteg euh, li nga xam ne moom mooy set bi nga xam ne euh, ki nga xam ne mooy Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké Falilou nekkoon fi xalif Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul nekkoon sët bi njëkk a toog jataayu Serigne Touba moom moo amoon li nga xam ne moo di xalaat bu am solo bii bu weeru safar teroo rek benn fan ñaar ba jàpp ñetti fan mu daal di àndandoo mboolem taalibe yi nga xam ne ñoom ñoo nekkee ci biir dëkk bi ak ñi nga ne ñoom ñoo génn sax mu def ab woote def appel uh, teg ko ci loxo yi uh, jëwriñ maam Cheikh Ibrahima Fall sëriñ Cheikh Jëmb faal ak mbooleem Cheikh yi ñu daal di àndandoo setal li nga xam ne moom mooy dëkk ba mu set wecci ba benn taq-taq du fi am ngir séntu li nga xam ne moom moo di gan ñi nga xam ne dañuy bàyyeekoo fii ci biir réew mi ak ci bitim réew ñëw di gani Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul bu ñëwee mën a nekk ci anam yu mucc ayib boobu ba léegi nag xalifa bu fi toog da ngay feddali jëf ju am solo jooju lee Serigne Sidi Makhtar Mbacke ba ci Serigne Mountakha Bassirou Mbacke tey jii nag gis ngeen ko mbooloo mi ci sama ginnaaw waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall ak mboolem dëkk bi ñi fi dëkke kenn ku nekk génn nga sa kër bale sa biir ba mu set nga génn ci mbedd mi bale mbooloo mi àndandoo ñu booloo bale dëkk bi tey ji nag ñu ngi fii ci marché Ocass ndax xam ngeen ni marché Ocass dafa nekk bërëb boo xam ne bërëb bu am solo la fii ci euh, Touba ndax xam nga ni li nga xam ne moom mooy ëpp ci liggéeykat yi fii la ñuy xëy si muy bërëb bu yaxantukaay boo xam ne bu am barke la ngir ñaan ngi fi Serigne Fallou ñaanoon tax na nag taq-taq yi parfois fii lay ëppee moo tax Baye Fall yi fii mooy nekk seen point bu njëkk boo xam ne ni bu ñu tàmbalee liggéey bi rek fi la ñuy daal di ñëw euh, setal ko ba mu set wecc àndandoo itam ne ñoom ñoo xëy ndax duñu leen bàyyee liggéey ñëpp dañuy tëj seen ay magasin ànd ak Baye Fall yi ñu tal li nga xam ne moo di marché bi mu set wecc jël mbali bi def ko ci ay camion daal di koy yóbbu fi nga xam ne foofu lañ ko war a tuuree kon xam naa damay ànd ak sama jëwriñ ci ndimbalam Serigne Ousseynou Mbodj ñu ànd ak yéen ci liggéey bu am solo boobule wan leen image yi nga xam ne ni moom moo fi am ak liggéey bi ñu ko taalibe defe defee ci paste fulla ak fayda amul seexlu amul dara ba liggéey bi yëpp daal di mat su ko defee ñu daal dellusiwaat ak yéen euh, mbokk yi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 صلاة وتسليم مع البسر سرمدا على من بي مكسي مع الأمن والبشر فراري بالمختار من قبل قاد لي مكوسا وتفسيرا لدى الجن والبشر رقد ذكورا بعد همد مقلد لبا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 wa fi kulli shahrin zayd rubhi wa fi safar rabaayi fi ixdaami xayril wara bada salaatu llazi fi kulli shahrin wa fi safar hamaani ala maahin maal absa wa safar salaatu llazi fi kulli shahrin wa fi safar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 هديت أن المولى وأن خير خلقي عليه السلام من لبوت بالسفر صلاة وتسليم مع البيس سرمدا على من بي مكسيم الأمن والبشر فراري بالمختار من قبل قاد لي مكوسا وتفسيرا لدى الجن والبشر رفعت ذكورا بعد همد مقلد لباق ما ضر الذي هذا غدر صلاة الذي أنوم أبدا لربي على من بي لقاد سوا بلا كدر فساة خير الخلق أبدت قصائدي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 على من بي مكسيم الأمن والبشر فراري بالمختار من قبل قاد لي مكوسا وتفسيرا لدى الجن والبشر رفعت ذكورا بعد همد مقلد لباق ما ضر الذي هذا غدر صلاه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 هديت أن المولى وأن خير خلقي عليه السلام من لبت بالسفر صلاة وتسليم مع البيس سرمدا على من بي مكسيم الأمن والبشر فراري بالمختار من قبل قاد لي مكوسا وتفسيرا لدى الجن والبشر رفعت شكورا بعد همد مقلد لباق ما ضر الذي هذا غدر صلاة الذي أنوم أبدا لربي على من بي لقاد سوا بلا كدر فساة خير الخلق أبدت قصائدي wa kawni bi abdan xadiman lu sahal rabitu rabam lam yakun qattu misluhu bi fadli lazi kawni habiban lu stahar salaatu lazi li xaada kawni xaliluhu ala man bi li tayyabal badwa wal xadar futuhaati rabbil arsi an qad maa ibi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 على من بي مكسيم الأمن والبشر فراري بالمختار من قبل قاد لي مكوسا وتفسيرا لدى الجن والبشر رفعت ذكورا بعد همد مقلد لباق ما در الذي هذا غدر صلاه asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu sëñ Ousseynou Mbodj ñu ngi yaa fi teewal télé bii sëñ màkk yu fay Touba TV ñu ngi nuyu bokk jullit ngi bokk jàll bi yëpp di yëpp murid yëpp leen ñu ngi seen Touba li mu jox wala murid yi Serigne Fall jëwriñ ji moom fii ci ñu jëmee tay ci marché Ocass suñ sa jëm Fall nee na ñu ngi woo ñëpp nag ci liggéey bii di sant ñëpp dañ ko wuyu si gi tàmbali nañ ko tey jii nag waaye def na lu bëree bëree bëri ndax tey axam lañ la droit ci weeru tubaab bu ñu defan ci weeru wolof dañoo yéenee bal dëkk bépp muy suba ajuma ak gaaw ak gaaw ak dimanche léegi mu àgg rek ma ngi ji kon fooy mën a ne yaakaar seen droit suñu mbéy mi lay woo yéen waa réew mi bàyyi nañ yitte dañoo wuy si te indaale seen i pelle ak seen i picc ak seen i radeau ak seen i farla ak seen i oto yéen waa bitim réew yéen leen seen i gasoil mbaa seen i feewal liggéey moom ku ne ma xamoon ci jàppe ku fi indi yaa moom ku fi indi suukar yaa moom ku fi indi dugub yaa moom waaye yi fi di ci maye dara lépp dañ koy jaay waaye loo jënd yaa ko moom nag kon nag kaay la jënd ci li seen tubaay jaay ndigal la koy jaay nag ndigal li jox ko waaye jëf nag moom mooy mos a bay kon nag suñu nee na ñu ngi woo ñëpp te ci yéene ñëpp te bëggal ñëpp kon nag jërë ngeen jëf bàyyi la ñuy téye dañoo wuyu si ndigal li ndigal jëfee barke Sëriñ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 salaatul lazi li salaamaaleykum wa rahmatullah kàddu moom lu lay doon sant yàlla ak yonent bi Serigne Touba ak maam Cheikh ak Cheikh Serigne Assane di ñaanal Serigne Mountakha Mbacké sama borom yàggal ko fi lool tax na ko fi wér di ko ñaanal Serigne Cheikh Jëmb Fall sama borom yàgg fa tax na ko wér di ñaan Serigne Amdi Khady Fall mi ñu fi yabal si sama borom yàggal ko lool te wéral ko ak njabootu Serigne Touba gépp ak njabootu maam Cheikh Ibra Fall di sant yàlla nag bu baax di julli ci yonent bi di sant Serigne Touba ci liggéey la gi muy ci dëkk bu tedd bii di ñaan nag murit yëpp sa borom may leen wér ak wërsëg ba man ñu ko suñu bëgg ñu defee ko noonu ñu àggale ko jàmm barke Sëñ Tuubaa ak Maam Seeraay Faal jërëjëf fi kulli sahrin wa fi safar هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر صلاة الذي salaat allazi fi kulli saarin wa fi safar xamaani ala maahin maal absar safar falaahi bi kawni abda rabbi xadimahu ajibun bihi li jaada moonin an nafar raditu an il mawla wa an xayri xalqi عليه سلام من لبوت بسفر صلاة وتسليم ñoo ngi lay fay. noo tudd. Seynabou Fall. Euh, ñu gis la nga nekk nii ci xidma bi di liggéey sëñ Touba ci bale bi fii ci marché Ocass ban heure ngeen xëy tey. tey kay moom ay 7 fekk nañu ko ndax sëñ Touba rek. yow fi ngay jaayee wala ci Baye Fall yi nga man ci Baye Fall yaa ànd Mbàkke laa dëkk ci Baye Fall laa ànd. doonu ma bàyyi faal sax waaye liggéeyal sëñ Touba bu ñu koy liggéeyal naa ca dem fas naa ci yéene teew Mbàkke laa dëkk. ban heure ngeen fas yéene wàcc. xanaa su motee rek su motee rek su liggéey bi motee rek ñu wàcc lan ngay lan ngay soññ taalibe yi ñi lay seetaan ak ñi nga xam ne ñoo dëkkee ci biir dëkk bi ak si biti lan nga leen di soññ ñëpp ànd ci ñu bokk liggéey liggéey bi moo àgg ci jàmm ñu liggéey ko mu ba sëñ bi wàcce ñu ci jàmm salaam loolu rek la ñuy ñaan ñun ñëpp nag. jërëjëf tur bi nan la. suñu Modou Joxaane. ma gis leen euh, ni ñi sol ay déguisement Baye Fall mais yéen da ay t-shirt bind ci 18 safar lu yéenee ñan. ñu ñooy waa bokk luñ gëm ñu ñooy waa bokk luñ gëm waaw jàppale gars yi rek ci mbale mi. fan ngeen fan ngeen nekk Touba wala Mbaye. Touba Mbal waaw ñu ngi nii nag dañuy defar suñuy kafe ak suñuy añ ak yooyu yëpp. pour jàppale gars yi ci coono bi. yéen yéenay defar ay añ ak ngir barkeeloo ko ci bale bi. waaw waaw ñoo koy def pour barkeel ko ci bale bi ndax xam nga ni gars yi moom danañ sonn te danañ mar te naaj bi dafa tàng faaw rek ñu am nun def. ñaata mën a ngeen di toog ñun rek lu ñu mën. trois trois ngeen def. waaw ay café. waaw ak ndox suñ guddi jotee dañuy def suñu tante nag waaw bégale ko si Ibra léegi xaalis boobu naka ngeen def ba dajale ko ci at mi yëpp ngeen koy dajale wala ci benn bis. non bi ñu duggee ci bi ñuy gi rek ci la ñu commencé kenn ku ne mag ak ndaw kenn ku ne li nga am nga ñëw bi moom dañoo gëm suñu bàmb dañuy luñ am moom dañ koy joxe. waaw merci yi kon ba léegi ñoo ngi fii ci njóobentaay fi nga xam ne ni tey jii euh, lu ëpp si Baye Fall yi fii la ñu xëy ko sëñ ñu jàkkaarloo nag mel na ni fii lay yëngatoo fii lay liggéeyee ñu ngi lay nuyu. waaw noo ngi leen di ziar bu wër. tur bi nan la. Mbaye Diouf. yéen fii ngeen di liggéey tey ngeen xëy ànd ak Baye Fall yi setal ko ba mu mel nii te yombul bërëb bi di mel nii loolu naka nga ko gisee. waaw loolu moom euh, xeewal yi borom dëkk bi la rek ndax borom dëkk bi moom euh, ah mbiram jëm kanam rek amul tànk gannaaw tànk kanam rek te soxe see woote moom ñëpp ci wuyu a ah, ànd ak xeewal ànd ak barke te képp ku ci ku ko def rek da nga ciy gis sa bopp. waaw waaw mel na ni fi ñu ko def nii nga xam ne fi ngeen doon liggéey nawet bi xawoon naa doy waar kon yaakaar naa waxtoom ci lañ ci leen ko def ci lañu ko defee exactement ndax fi mu ne wax dëgg yàlla dëgg set na wecc ndax euh, wér-gi-yaram dafa laaj set li tubaab naa santé ak wér-gi-yaram ñoo ànd bala ngay mën a lekk da ngaa set effectivement Eh, lan ngay soññu taalibe yi parce que bu ñu ko defee nii màggal gi des na 15 jours lan lañ war a def ba mën a préserver cet googu. waaw cet googu maanaam képp ku tax mënta ñàkk mais soo tax ne ba ngoon nga nga bale ut sa saako nga dugal ko si am na charrette yu tonni mbalit nga fay ñuy tuuri ko waaw am na oto yoo xam ne ñooy seetal dëkk bi oto commune bi bu ñëwee it ñu dugal ci mbalit moomu mu tuuri ko. waaw waaw. kon euh, setal baax na lool waaye mën a fexe ba du taq moo ko gën. moo ko gënal waaw ndax taq mulu ñàkk mais boo taqalee da ngay setal ndax fi la ñuy tëddee fi la ñuy suturloo nit ki fi muy tëdd di fi suturloo daf koy fonk effectivement. jërëjëf merci. si ñu ngi lay euh, nuyu tey ci mbale mi ñoo ngi fii ci syndicat gis nañ ni ko Baye Fall yi bu ñu jógee di bale ci safar gi presque fii la ñuy njëkkee ngir mën koo setal parce que day xaw a taq lool gis nañ itam yéen soxna yéen a gën a bari lu ñu fi yëngu euh, loolu naka ngeen ko gisee ak naka ngeen ciy jàpp ci liggéey waaw onze billahi minan seytaan rajim barke Serigne Saliou nuy santaat suñu borom rek di santaat sëñ Mountakha Mbacké di sant Serigne Touba mi waral lépp nun moom danoo sant suñu borom ba bale bu ñu déggee ndigalal bale li rek dañuy daal di génn suñuy bagage bale lépp ba set ñoom dañ fiy jaal jaal rek maa ñi nga xam ne ñoom laa nekkal nag ku lim rek da ngay juum ku mel ni mbarke joo Bintu Gay Fat Seck Fatick sama bàyyiwuma kenn mboole mboolo yi ñëpp rek dañuy nekk di liggéey ak xale yi ndaw yi daal ak Ousmane Diagne ñoom Mor Diagne ñoom ñëpp dañuy dañuy bo ànd ci mbale mi wax dëgg yàlla ñu. kon daal da ngeen di da ngeen di xëy bale seen ay place teg mbal mi si buntu bi bàyyi faa li ñëw ramassé. waaw ñun dañuy bale ba pare daal di fay waaye nag ndax ndigal Serigne Touba moom kenn ku nekk dañ koy sabablu ku ci mel ni Ousmane Diagne nag moom ak Sadi Ndiaye ñoom ñoo féetewoo wàllu café gi ñoom dañu ségg seen café ka ku fi romb rek daal di xiwlu soog a dem ñun dañuy liggéeyal Serigne Touba rek moo tax a loolu liggéey fii dañ koy liggéeyal Serigne Touba delloo ci Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacke njukkal nag. gis nañ ne que fii nawet bi day xaw a doy waar lool ci takk-takk yeeg yu mel noonu jamono jii jël bale nañ ko ba mu set naka ngeen def ba sàmm ceet googu ba màggal gi mën ko fekk nii. ñun sàmm ceet googu moom ci la ñu sabablu fu ñu toll ndax ginnaaw yow yoroo mbalit moo xam ne si day salte ndax nun ki nu nekkal nga xam ne mooy suñu jëwriñ ci marché bi muy Mame Baba Seck duñu may jàmm fenn suba duñ may ngoon fu ñu toll ni ngi liggéey takk suñu ndigg di liggéey di ko jëfe nag di jëfe ndigal li ndax nun danoo santaat bi nga xamee ne si daanaka su ma yeboo ne la danoo yaroo ci daara sëñ Saliou ànd ndoog maam Baba Seck mi ñu fekk ci syndicat bi di fas yéenee liggéey Serigne Touba nun moom wax dëgg yàlla loolu tubaab naan sa moom sant nañ Serigne Touba. tet gi daal nan ngeen koy sàmm da ngeen di wut ay poubelle teg ko fi di tonni mbalit mi wala da ngeen koy bàyyi noonu. wutuñu ay poubelle wut suñuy saako ak suñuy dàmba di bale di ci tuuri xale bu góor bi ñëw nuy fay nun fi mu ne kenn ku ne da ngay fayal sa bopp mbalit tubaarkàlla macha allah noonu amuñu benn. Euh, mën nañ jàpp ne fii di 18 safar bërëb bi nii mu setee noonu lay wooyee. incha allah rabbi saa yoo fi rombee rek bu soobee Serigne Saliou Mbacke nii ngay fekk mu mel nun bant bu fi nekk rek dañ koy for daal di koy tuuri noonu la ñu fas yéene bu soobee Serigne Saliou. jërëjëf merci. jëf mbokk yi ci image nga xam ne moom ngeen di jàkkaarloo ni ki suñu wet yaakaar naa ni bërëb bi ku xam fi nga xam ne moom moo di marché nga xam ne bërëb la bopp day bëri mbool lool fii la ñuy wax maquette bi euh, mu nekkoon bërëb boo xam ne ni bu màggal jotul wala safar jotul da gis ne que am na ay takk-takk yu bëree bëri yoo xamante ne nii dañ ko fi nemmeeku te tey ji ngeen li nga ni noonu la setee noon la leere loolu lépp nag ci dimbalul ñi nga xamante ni ñoom ñoo fiy liggéeyee d'abord ndax ñooy tàmbali li nga xam ne ñoom moo di liggéey bi kenn ku nekk soo xëyee bale sa place génne mbal mi teg ko ci kaw su ko defee ñi nga xam ne ñoom ñooy bàyyi faale Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul di waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall nag dogg àndandoo li nga xamante ne ni moom moo di euh, liggéey bu am solo bi mooy tonni mbal mi def ko ci camion yi xool jal yu mag itam ñu daal di koy euh, mën a ramasser daal di koy def ci camion yi daal di mu koy mën dem tuuri ko fi nga xamante ne ni moom moo di ca cadre ballo ji fi nga xam ne euh, fa la centre d'enrichissement technique bi nekk gis ngeen tam nga xam ne moom moo di Serigne Fallou Fall moom euh, Serigne Cheikh euh, moom Serigne Modou Aminta Fall mi nga xam ne saa yu nekk sonn tayiwut mi ngi ci liggéeyub maamam bi waaye tam mi ngi liggéeyal ki nga xam moo di Serigne Cheikh Jëmb Fall di xalifa général des Baye Fall gis nañu tam mboolem mag ñi ndaw ñi góor ak jigéen kenn desul ñëpp ngi am Pastef ci li nga xam ne moom moo di liggéey bi nga xam ngeen ni nag liggéeyu euh, bale bi ci dëkk bu sell bi Touba gi safar gi du yem rek ci benn fan ay fan yu bëri lay doon ba keroog sëriñ bi euh, sëriñ Cheikh Mbacke Ablatif mi nga xam ne la sëriñ Mountakha basiru Mbacke dénk liggéeyub euh, cet gi daal di woote ñi nga xamante ni ñoom ñoo di Baye Fall yi ànd ko sëriñ Bassirou Mbacke Abdou Khadir su ko defee ñu doog santaane joxe ndigal ñu yeewu mboolem taalibe yi ci li nga xam ne moom moo nekkoon euh, euh, liggéey bi gis ngeen kàddu yu am solo yi nga xam ne nii yëkkati na ko waaye seen émission yor yoru safar gi du jeex dañuy ànd ak yéen woy ci li nga xam ne moom moo jëm tam ci nguurug Sénégal pàcc bi nga xam ne ni daf koy dugal ci li jëm ci wàllu mbale mi xam ngeen ni jëwriñ ji gàlloo lépp lu jëm cetug réew bu Sénégal tey jii lay ñëw saafante ak kilifa yu dëkk bi maanaam maire bi ak Serigne Cheikh Mbacke Abdou Latif euh, doxe li nga xam ne moom moo di yéeneem ak dooleem ci li nga xam ne moom moo jëm ci mbale mi kon xam na sans plus tard dañuy ànd ak yéen ci cérémonie de remise boobu nga xam ne nii moom mooy amee ca euh, résidence bu Daaru Manaan incha allah su ko defee ñu ànd ak yéen ci kaddu yi nga xam ne yëkkati na ko ak kaddu Serigne Cheikh Mbacke Abdou Latif dellu seer yéen ci yor yoru safar salaatu llazi fi kulli sahrin wa fi safar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 على من بي مكسيم الأمن والبصر فراري بالمختار من قبل قاد لي مكوسا وتفسيرا لدى الجن والبشر رفعت ذكورا بعد همد مقلد لباق ما ضر الذي هذا غدر صلاه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 salaatu lazi li xaada kaw ni xaliluhu ala man bi li tey yabal badwa wal xadar fotohaati rabbil arsi an qad maayi bi bi jaahi lazi baahat bi man alaw mu dar rabaaya fi ixdaami xayril wara bada wa fi kulli sahrin zayd rubhi wa fi safar رباعي في إخدام خير الورى بدا وفي كل سهر زيد ربه وفي سفر kon kilifa gi monsieur le ministre mi ngi lay nuyu baax yaag mboolem chef de service yi nga àndal ak mboolem kilifa yi nga fekk ci région bi muy gouverneur préfet sous monsieur le maire mi doon wax léegi ak yeneen autorités yi nga xam ne ànd nañoo ak yow ñëw fi ñu ngi lay ñu ngi nuyu ñëpp ci turu sëriñ bi sëriñ bi nee na mi ngi lay sant bu baax taxawaay bi rafet na bi ñu dalee waajal màggal Touba ba léegi lii ne ci loxoom ne ci loxoom lépp lu fi waay mas a def gis na ko xam na ko mi ngi sant ci li weesu lii ñu toll it ah, ni ko monsieur le maire waxee léegi moom mi nga xam ne moo nekkoon ak yéen nekk say ndaw ci terrain bi li mu ci seede doy na sëkk sëriñ bi dégg na loolu mu dolli ko ci bi nga fi ñëwee ci jamono yi ci gannaaw li nga waxtaane woon sëriñ bi waxtaane ko moom mii muy lu jëm ci màggal ak lu jëm ci waa dëkk bi ci seen yitte nee na mi ngi la ciy sant bu baax mboolem yooyu nga xam ne waxoon na ko yow lu ci nekk la ko ca tontoon dégg na ko lan ko ca waxoon gis na ko mu mel ni jataay bii nag waajtaayu màggal moo ko waral sëriñ bi gis na teraanga yi ñu fi indi ngir seetal dëkk bi ci waajtaayu màggal ak bu màggal weesoo ñu war ko seetalaat gis na li ñu lépp ci teraanga gis na itam sa ndaw yi nga xam ne ñoo la fi nekkal ci biir liggéey bi li ñu leen ci war a yittewoo loolu it ku mel ni monsieur Guèye mi nga xam ne moo nekk ci département bi mboolem lu ñu ko ci yittewoo mi ngi ci ànd ak sëriñ bi di ko matal kon loolu yi ñu la koy seedeel di sant bu baax ginnaaw bu loolu jàllee. sëriñ bi nee na moom sëriñ Cheikh mii ñuy wax ci turam nee na mi ngi lay wax ci turu sëriñ Muntaxa Xaadimu Rasuul mi nga xam ne moo yëkkat liggéey bi teg ko ci loxob jooriñam sëriñ Mamadou Basir mu Cheikh Abdou Khadir mu tegaat ko ci loxoom mu ànd ak nun taalibe sëriñ Tuubaa yëpp nag muy daayira yi muy mboolooy muy doomi Cheikh yi muy képp koo xam ne yaa ngi dégg baatam ci liggéey bi nga wuy singa ko ngir jëmm sëñ Tuubaa nee nañ ci turu boppam ci turu sëriñ bi mu ngi lay sant bu baax di lay yóbbante ak cant ci la président de la république moom mi nga xam ne moo la tànn doy loo la ci ministère bi mu la dénk liñ ci seq ak yow gis nañ ne lépp yaa ngi ciy góorlu li nga ci wees rafet na mu ngi lay ñaan li ci kanam nga am ci ndam barke Sëñ Tuubaa nee na mu ngi lay wax ne sëriñ bi day màggal gi rek la am Tuubaa rek la am njaboot Sëñ gi rek làmb am wàll wi ñu ci féete li ñu ci taxawee gis na ko mu ngi la ciy sant bu baax teraanga jigéen bi mu jëm ci liggéey bi rëy na gis nañ ko yàlla yàlla fay la teew gi nga teewit teewal sa jëmm ànd ak ñooy seqal liggéey bi ñëpp loolu rëy na ci ñoom ndax yëg xam na ne bis bi ñor na la kon loolu ñu ngi la ciy sant bu baax di la ñaanal yàlla gën laa jàppale bu baax wax na ne itam mi ngi sant mboolem taalibe Sëriñ Tuubaa yi nga xam ne bi mu yëkkatee liggéey bi ba léegi ñu ngi ci ànd ak moom boo génnee ci dëkk bi waar bi ñëpp a ngi ci ngir jëmi Sëriñ Tuubaa nee na mi ngi leen di sant ci sa kanam ngir seen taxawaay yu rafet ci liggéey Sëriñ Tuubaa bi mi ngi sant itam ñi nga xam ne ñooy tasaare xibaar yi ba fépp fu ñu ko soxlaa te ndaw mënu faa dem ñu mën ko faa àggale seen taxawaay rafet na ci la tàmbalee ci réunion ya ba ci tey bii tey it noonu lañ koy àndeek noonu boo màggal gi jeex ñu leen ci sant bu baax muy ñi nga xam ne dañ see teewal état mu la RTS ak yeneen presse yi nga xam ne itam seen yeneen kilifa lañ am yoo xam ne ñi ngi jàppale kilifa réew mi ci wàll woow ñoom it mi ngi lay seereel seen i taxawaay ne xam ne euh, noonu la RTS taxawe ci liggéey bi ñoom seen jàppale mat na sëkk ci seen diggante ak nun ci liggéey bi ñi ngi sant bu baaxit kilifa gi nga xam ne moo la fi yabal te sumb ay liggéey bari ci dëkk bi te lépp jëm si jabal sëñ Tuubaa bi nee na mi ngi koy ñaanal yooyu nga xam ne sumb na ko ko te jabal sëñ Tuubaa tax yàlla may ko kattan gum ko mën a àggale ba nii nga fi teewee ci màggal gi ñu teewaat fi ci daloo liggéey yooyu yëpp ci barke sëñ Tuubaa mi ngi sant ñëpp mu ngi gërëm ñëpp mi ngi fàttali itam noonu bokki taalibe bi nee na liggéey baa ngoog nañ ko baaxoo defe nañ fas yéene àggale ko tàllal suñu loxo sëriñ bi mu defal nu li gën ci noonu tudd naa defal nu li gën ci noonu ci barkeb sëriñ Tuubaa kon sëriñ bi nee na ñu ngi sant ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp di delluwaat cant gi nag ci monsieur le maire Cheikh Abdou Lahad Ka moom mi fi teew te war leen a dalal ak mboolem ñi nga xam ne ñoom la seqal département bi arrondissement bi région bi muy sous préfet préfet le gouverneur ci taxawaay bu rafet ci yi nga xam ne moom lañ seq ak moom ak taxawaay bu rafet boo xam ne taxaw na ko ci CRD bi ñu weesu ci jël ay engagement ci lépp loo xam ne war na ko desalu ca dara ñu ngi ko ciy sant bu baax sëriñ bi nee na ñu ngi ko ci sant bu baax jëla ko seedeel yow mi nga xam ne yaa jóge ci kilifaam di kilifa ci moom ci liggéey bi ngeen sëq kon daal ci gàttal sëriñ bi neexut a ci kàddu fekkoon ne moo koy waxal boppam. nee na ginnaaw bi ñu sant yàlla. julli nee na julli ci sang-sang yi. sallallahu alayhi wa yàlla bu nee na ñu ngi sant yàlla bu baax. nee na ci xéewal yi nga xam ne sunu borom defal nañu ko. fi nee na moom fi muy tàmbalee di jël kàddoom. damay ndokkale jullit ñëpp. nee na mi ngi ndokkale jullit yëpp. rawatina la communauté na bëri na nag tamit ñi nga xam ne mooy ñi nga xam ne mooy murit ñi. rawatina comité communauté murit bi. ñu murit yi. li nga xam ne weesu te li nga xam ne mooy weesu nañ ko. ci ajjuma bi ñu génn. te muy ajjuma bii nga xam ne dañ ko weesu. ne muy ubbiti. masaalikul jinaan. nee na mu nekk taar. nee na taaral jullit ñëpp nag. nee na loolu la taaralul Sénégal rek. nee na ci àdduna bi yëpp la taaral. nee na loolu fierté la ci ñun ñëpp nag. nee na loolu ñu ngi koy sant yàlla baax mbàkk. di yàlla nee na di ñaanal yàlla aussi. ñi nga xam ne. nee na ñi nga xam ne. jël nañu seen i alal. nee na nga xam ne dañoo jël seen alal. dugal ko ci dugal ko ci. ngir yàlla. nee na ngir yàlla. yàlla na leen yàlla fayal boppam. nee na yàlla na leen yàlla fayal boppam. Euh, maa ngi nuyu bu baax Serigne Abdou Latif. nee na Serigne Abdou mi ngi lay nuyu bu baax Mbakke. nuyu bu lay nuyu. nee na bi nga xam ne daf la nuyu nag. nga xam ne moom nga fi ne mooy ki nga fi mooy ki nga nee na xalifa bi Serigne Touba moom nga fi toogal. donc bu na nee na kon bu sañoon. bu ñu mun nañu sañ wax ni. nee na mun nañu sañ wax ni. xaadim rasul nga fi toogal. nee na Serigne Touba xaadim rasul nga toogal fi sa jataay bi. donc nuyoo bu sell lañ lay beral. nee na kon Mbacke nuyoo bi dala koy beral muñ bu sell. mi ngi lay sant bu baax. nee na mi ngi lay sant bu baax. bi nga xam ne teertu nga. nee na ci teertu bi nga xam ne teertu ngeen ko bi ngeen bi mu agsee Touba ak léegi. nee na jullit yi fi daje yëpp nag mu ngi leen di nuyu bu baax. maa le maire. nee na mi ngi nuyu monsieur le bu baax. maa ngi nga xam ne ñoom ñoo nee na mi ngi nuyu autorité yi nga xam ne ñoo leen gàttalu. mooy le gouverneur ak ñi mu àndal. nee na mooy le gouverneur ak ñi mu àndal ñëpp. suñu tànk tey nee tey seen tànk ci Touba tey. mooy na mooy ñëw. bokk ak jullit ñëpp. nee na bokk ak jullit yëpp nag. bésu Serigne Touba bokk ak bi bésu bii jullit yëpp nag. màggal nee na màggalu Touba bi nag. bi ñu dégmal. nee na bii ñu dégmal. bésu jullit ñëpp la. nee na jullit yëpp la ñëpp ko bokk. événement religieux la bu dimension internationale. nee na événement la boo xam ne ñëpp a ko bokk bu rëy la ñëpp xaj nañ ci. dimension internationale. nee na dimension internationale la. donc nee na kon ñun. li ñu war. nee na kon li leen war. koy dëgmal nee bu bis boobu dëgmal mu di jëm si ñu jëm si ñu jëm si dañuy jot suñu kilifa nee na tamit jot ndigalu kilifaam muy le président de la république muy président de la république lépp président de la république président rek mooy président mooy président ki nga xam ne ki nga xam ni jox nañu ay tegtal yu leer nee na jox na leen ay tegtal yoo xam ne lu leer la lépp lu na lépp loo xam ne mën nañ ko nañu jàpp ci nanu jàpp ci bisub Serigne Touba bi nee na moom bu jógee fii dañ fay ñëw ak ndigal nee na dafa ñëw ci ndigalu président nee na ñëw ci maanaam gouvernement bi yépp li nga xam ne moom la ñu dëgmal. nee na li nga xam ne moom la ñu dëgmal nag. te ñu aadawoo ko def. nee na te dañ ko aadawoo def. mooy balayer Touba ak li nee na dañoo bëgg a bare Touba ak li ko wër yëpp. en tant que ministre en tant que nag wax dëgg yàlla moom mu doon ministère environnement. war ñu seet des ginnaaw. nee na kon loolu wax dëgg yàlla moom warut a des ginnaaw benn yoon. nee na lépp loo xam ne Mbàkke indi nañ ko fi. dañ ko boole ak xeeb. nee na lépp lu ñu fi indi tey ci bis Serigne Touba bi dañ koo xeeb. parce que nee na parce que nag. seulement bés bi jar na lu ëpp loolu. nee bi jar na lu ne. waaye liggéey bi aussi bi ñu sumb. liggéey bi ñu sumb nag Mbàkke. liggéey bu tuuti. nee loolu moom liggéey bu tuuti. ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla jàppale. nee na ngi ñaan nag yàlla jàppale leen Mbàkke. bu mu àgg comme ni mu faral ni mu daan àggee at yu be bees yëpp. nee na ñu ngi ñaan daal at yu bees yi ak yi ñu dëngbal yëpp yàlla na àgg ak jàmm ci kàttanu yàlla yonente mu nekk njëriñu jullit ñi. nee na mu nekk nag njëriñu jullit yëpp Euh, Serigne Khadim léegi. waaye sëriñ Khadim Mbacke léegi. li mu wax li mu wax. dégg nañ dégg nañ ko Mbacke dégg na ko. si sa tur la waxee. nee na sa tur la waxee. ñu ngi koy sant di ko gërëm. nee na Mbacke ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax. ñu ngi lay euh, jaajëfal ci kaddu yu rafet. na ñu ngi lay jaajëfal ci kàddu yu rafet yi nga yëkkati. Euh, li nga xam ne nag. nee na waaye nag li nga xam ne nag. gis naa ko bi may dugg. nee na li mu gis daal bi muy dugg. mënu ma ko noppiwaale. nee wax dëgg yàlla ah mënu ko noppiwaale de de l'environnement. ma de l'environnement. bu jaaree si ñaari voies yi. nee na bu jaaree ci ñaari voies garab yi ñuy jëmbat fii. nee na waaye gis garab yi nga xam ne dañ koo jëmbat. ci ndigalu xalif bi. nee na ci ndigalu xalifa bi. sunu xel day sunu xol day dal. nee na moom wax dëgg yàlla xelam dal ak ñi mu àndal. sunu xel yëpp day dal. nee na xelam day dal de bu baax a baax. donc loolu. nee waaye loolu nag. firndeel na nii nee na waaye loolu firndeel na ni. lépp lu Sénégal yëkkati. nee na lépp loo xam ne Sénégal yëkkati na ko. nee na kenn du ci jiitu Touba Mbacké nee na daal wax dëgg yàlla mi ngi rafetlu Mbacké li ñu gis ci dëkk bi eh, xalif bi de jox na joxoñ na nee na xalifa bi de joxoñ na joxoñ na fi ñu war a li ñu war a def nee na moom joxoñ na li ñu war a def ñun kay ñoo des ñun kay ñoom ñoo des waaye Touba li ma gis fii nee na nee na Touba li mu gis ci bi muy ñëw léegi cas set dal na suñu ah, na loolu moom xelam sedd na lool. sama xel sama xol set na ci lool. non xelam sedd na ci lool ci li mu gis Touba. parce que président nag. dafa dafa jël ci programme ci initiative bu cinq initiative juróomi initiative yi mu jël. nee na président nag dafa jël ay pàcc yu bëri yoo xam ne ci li mu a jël. benn ci initiative bi mu tuddee ko PSE vert. nee na boobu dafa jël PSE vert. mu ne. mu ne. dama dafa bëgg. réew mi. nee na réew mi. mooy ville mooy àll bi. àll bi lépp naat. lépp dañoo bëgg mu naat. lépp delluwaat ni mu meloon démb ak barki. nee na dañoo bëgg nag lépp mel ni démb ak démb ak barki démb ni mu meloon lépp. bu ñu gisee nii rek dañ koy sant yàlla. nee na kon tey bu ñu dikkee Touba gisul mel ni dana sant yàlla. dañuy sant yàlla aussi bi ñu dikkee fii. nee na bi ñu dikkee fii ci Touba nag Mbàkke fekk leen fi dañuy sant yàlla bu baax. di euh, bërëbu ñaanukaay. nee na dëkk bii di Touba bërëbu ñaanukaay la yàlla defee. nee na bu yàlla mi nga xam ne mooy borom jaam ñi defee. ñu ngi dégmal dégmal yu mel nii. nee na ñu ngi dégmal màggal gu mel ni amuñu lu ñuy def. nee na amuñu lu ñuy def. lu dul ñëw sàkku ñaan sàkkal réew mi ñaan. nee na ñëw sàkk fi ñaan sàkkal réew mi ñaan. ñu ñaanal yàlla ki nga xam ne moom mooy njiitu réew mi. nee na ñu ñaanal yàlla ki nga xam ne mooy njiitum réew mi. yàlla oyofal ko yéen bi nga xam moom la ko sénégalais yi. nee na yéen bi nga xam ne maanaam moom la ko sénégalais yi def ñu naan ñu ñaanal leen ba mu woyof lool ci boppam ak bépp jullit bu ko yéene. umpale wuñu. na umpale sëriñ bi sëriñ ngi koy ñaanal nee na mi ngi koy ñaanal guddi ak bëccëg. umpale wuñu. umpale wuñu. sëriñ bi sëriñ bi. mu ngi ñaanal réew mi guddi ak. nee na mi ngi ñaanal réew mi guddi ak bëccëg. amuñu benn xel ñaar. nee na loolu amu ci benn xel ñaar. ñaan yooyu yàlla dana ko na ñaan yooyu yàlla dana nangu euh, xaw naa guddal. nee na xaw naa guddal. waaye eh, firndeel sama mbégte sama teewaay. nee na day firndeel mbégteem ak teewaayam fii ci Touba. bu fekkee ne ñëw nañu fii. nee na bu fekkee ni nag ñëw nañu fii. def fi benn. nee na benn bu ñu fekkee ne benn lañ fi def. at bu nekk at bu ne. président day digal bu fekkee ne benn lañu defoon nañ def ñaar. nee na président da wax ni bu fekkee ni benn ngeen def na ngeen def ba ñaar fukk wala téeméer. lépp lu fi lépp lu at bu weesu. nee na at lépp lu at bu weesu. lépp lépp lu weesu. dañuy jot ay ndigal ak ay tegtal. nee na dañuy jot ak i tegtal. nañu fexe ba def li nga xam ne def ko woon daaw. nee na da leen di wax naan def leen li ngeen xam ne defu leen ko woon daaw na ngeen ko def nii ci at nii. am na loo xam ne nag bëgg naa ko fàttali. nee na waaye nag am na loo xam ne moom na ko fàttali. Euh, nettoyer. nee na waaye nettoyer. mooy euh, setal. nee na loolu mooy setal. baax na de. nee na baax na lool. waaye ñàkk tilimal moo ko gën. nee na waaye ñàkk tilimal moo ko gën nag. nañu góorgóorlu nag. nañu nu góorgóorlu nag. kilifa yi takku laxasaay. nee na kilifa yi nga xam ne dañoo takku laxasaay tey. nekk ci naaj bi. nekk ci naaj wi. di setal di setal. nañu fexe nag ba bañ a tilimal li nga xam ne. nee na wax dëgg yàlla nañu setal ba daal li ñu doon liggéey muy set ñu bañ ko tilimal nag. loolu nag mooy jàppale bu gën a njëkk ci jàppale bi nga xam ne war nañ ko def. nee na loolu mooy bi nga xam ne daal dëgg dëgg dëgg dëgg daal war na ci seen diggante ñoom jullit yi setal setal setal setal baax na baax na lool waaye ñàkk tilimal waaye ñàkk tilimal nag yaakaar naa ne moo ko gën nee na loolu moo ko ñu ñaan mbooloo mi ñëpp nee na yéen mbooloo mi may dégg yëpp ñu ngi leen di ñaan ñu nekk ci Touba nee na ñu nekk ci Touba ñu nekk ci ginnaaw Touba nee na ñu nekk ci ginnaaw Touba ñu farlu ci setal ne farlu ci ñàkk nee na ñu farlu ci setal te bañ a taqal te bañ a taqal te bañ a taqal bu ñu defee noonu nee na bu ñu defee noonu nag léppay léppay baax nee na Mbàkke léppay moo tax moo tax nag dañuy faral di gis nee na dañuy faral di gis nag. fi mbooloo mi di daje. nee na fépp foo xam ne mbooloo dañuy fay daje. bu ñu jógee foofu. nee na bu ñu jógee foofu. ay mbuusi mbuusi mbuus. nee na ay mbuusi mbuusi mbuus lañuy gis. ay sachet sachet yu bëri lañuy. nee na ay sachet ay sachet yu bëri lañuy gis di ko sànni. nañu ñu ngi ñaan mbooloo mi. nee na ñu ngi ñaan mbooloo mi nag. ñi ñuy déglu. ñi ñuy déglu. képp naanati mbuusi ndox. nee na képp koo xam ne naanati nga mbuusum ndox. fexeel ba bañ a sànni mbuus. nee na na nga fexe ba bañ a sànni mbuus gi nag. fàttalikul. nee waaye nanga nga fàttaliku. avant màggal bi. avant màggal bi. am na ay kilifa ak ñi kilifa yebal. nee na am na ay kilifa ak ñi nga xam ne ay kilifa da leen yebal. laxasaayu di setal. nee na laxasaayu nag di setal. loolu nag bu ko nit bu ko nit gisee. nee na loolu nag bu ko nit gisee. war naa rusa kilimal. waaw loolu wax dëgg yàlla war naa bañ a rusa tilimal war naa rusa tilimal war naa rusa tilimal fan yëpp ñu ngi wax ci mbuusu plastique nee na fan yi yëpp moom mi ngi wax ci mbuusu plastique yi am na ay sachet yi nga xam ne nee na Mbacke am na ay sachet yoo xam ni mooy sase en carton nee na mooy sachet en carton loolu amul benn ngaañ-ngaañ bu muy am ci suuf si nee na loolu amul benn ngaañ-ngaañ boo xam dana am ci suuf si moo tax ñu sakku benn loo am solo nee na moo tax ñu sakku benn loo bu solo jëbbal la ko jëbbal la ko Mbàkke pour que ñi way jëfandikoo yi nee na moom ñi nga xam ne ñooy way jëfandikoo yi oh, au lieu ñuy jëfandikoo mbuus a alors que ñuy jëfandikoo mbuus nañu jëfandikoo sachet yi nan jëfandikoo sachet yi si lañ jëm ci lañ jëm mooy suñu combat nee na moo loolu mooy suñu combat parce xam nañ ne mbuus yi dégâts yi ñuy def ci réew mi nee na loolu ñoom xam nañ mbuus yi dégâts bi muy def ci réew mi ñu ngi leen di sant nag Mbàkke Balla nee na ñu ngi leen di sant bu baax ngi leen di gërëm bu baax nee na ñu leen di gërëm bu baax ci liggéey bi nga xam ne yéen a koy liggéey nee na ci liggéey bi nga xam ne moom ngeen di liggéey di liggéeyal askan wi ñu ngi liggéey bi nga xam ne moom ngeen liggéeyal askan wi liggéey bi nga xam ne nee na liggéey bi nga xam ne nag yéen a ngi koy liggéeyal liggéeyal seen borom nee na leen liggéey bi nga xam ne moom ngeen di liggéeyal suñu borom liggéey bi nga xam ne nee na liggéey bi nga xam ne moom ngeen di liggéeyal Serigne Touba nee na liggéey bi nga xam ne moom ngeen di liggéeyal seen maam Serigne Touba yal nañu yàlla fayal boppam nee na Mbakke mi ngi ñaan yal nañu yàlla fayal boppam yal nañu yàlla fayal boppam yal nañu yàlla fayal boppam loolu moo amoon mu nekkoon ay kaddu. nee na loolu moo nekkoon ay kaddoom. yoo xam ne buggoon naa ko fi rotal. nee na loolu la bëggoon a rotal fii ci Touba. maa ngi sant ñi ñëw ñëpp. nee na mi ngi sant nag ñëw ñëpp. direction euh, euh, ministère de l' environnement kenn desul. nee na direction environnement kenn desul. bi Euh, euh, dégmalee màggal bi. nee na bi ñu dégloo màggal bi ñu dégmalee màggal bi. lépp luy autorisation coupe de bois mort mooy dagg garab yu euh, bant yu dee pour mat nee na li nga xam ne mooy dagg garab yu matt yu dee yi. pour que nit ñi mun a am mun a togg. nee na pour que nit ñi mën a togg. direction des eaux et forêts joxe na ay ay ay autorisation. nee na direction eaux et forêts béy di ba joxe na autorisation. loolu nag. loolu nag. defuñu ko pour lenn par suñu wareef la. nee na loolu defuñu lenn ndax suñu wareef la. leneen li leneen li ci des nag. an am na ay camion citerne. nee na am na ay camion citerne. yoo xam ne direction des eaux et forêts. nee na direction eaux et forêts. ay camion yu am ay citerne yu am ndox. nee na ay citerne yoo xam ne danañ am ndox. dinañ ko indi tamit boole ko ci jàppale bi. mbakk yooyu danañ ko indi ci bisub Serigne jàppale leen ko. ñoo ngi sant yàlla bu baax nee na mi ngi sant yàlla bu baax monsieur maire ñu ngi delluwaat di la nuyu nee na monsieur le maire ñu ngi lay delluwaat di la nuyu nga jël euh, sunu nuyoo nee na ñu ko si loxo population nee na nga jël nuyoo bi jox ko population bépp ñu ngi sant yàlla bu baax nee na mi ngi sant yàlla bu baax maa ngi gërëm ñi nga xam ne ñoom ñoo teewe nee na mi ngi gërëm ñi nga xam ne dañoo teewe tey ci bis bi ndaw rek la nee na moom ndaw rek la ndaw président de la république nee na ndaw président rek la li may dox nee na li muy dox nag ci santaane président lay nee na ci président rek lay dox maa ngi sant yàlla bu baax nee na mu ngi sant yàlla bu baax ñu ñaan yàlla nee na ñu ñaan yàlla euh, xalifa bi nee na xalifa bi yàlla bàyyil ñu ko sunu kanam bu yàgg yàgg nee na yàlla yàlla bàyyi sunu kanam bu yàgg mu ànd ak wér bu ànd ak wér. nee na mu ànd ak wér bu wér. moom ak ñi mu àndal yëpp. nee na ak ñëpp ñi mu àndal yëpp. moom ak ñi mu àndal ñëpp. ñëpp ñi mu àndal yëpp. yàlla may ko wér. nee na yàlla may ko wér. yàlla may ko gudd fan. yàlla na ko yàlla may gudd fan. yàlla may ñu. yàlla may ñu nag. ñu teewee déwén. nee na ñu teewee ay déwéni déwén. teewee beneen màggal. nee na ñu teewee ay màggali màggal. teewee ay màggali màggal. ay màggali màggal. yàlla na ko yàlla def. yàlla na ko yàlla def. yàlla mën na ko. yàlla mën na ko. yàlla nañu ko yàlla defal. yàlla nañu ko yàlla defal. wasalaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf monsieur le ministre kontaan nan bu baax da sabwan bila kadar fasaatu xayril xalqi abdat qasaayidi wa kawni bi abdan xadiman lu sahar rabitu rabam lam yakun qattu misluhu bi fadli lazi kawni habiban lu stahar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 رباعي في إخدام خير الورى بدا وفي كل سهر زيد ربه وفي سفر